damaa sama ñaari doom yi kan nga ci bëgg a waxal. ah. kan nga bëgg a waxal ci ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp mais jox ma sëñ njànku moom alaaji njànku moom. alaaji ñànku jëlal. kañ la nekk alaaji si seex mi maa ngi lay siyaare bu baax anawaas anawaas safo ak waa Kole. njànku maa ngi lay ziar bu wér a wér. <laughs> naka waa safo ak waa Kole. waa Japon. ah safo yow nekkoo Kole Kole. kii nekkul Corée waaye Japon la nekk mais maa ngi nag am na sama waajur la bëgg ju nekk nag. ndeysaan ne ko ñànku ne mu ngi lay mu ngi maa ngi lay maa ngi lay bëggee nag sa dara du ma raw yëpp laay seetaan. du ko raw kon sonn nga yaa ngi lee mu sonn waaye. waaw yaa ngi man lu mel nag rawatina suñ saaneex moomu. ndeysaan suñ suñ suñ suñ. suñ papa suñ papa la suñ suñ suñ la suñ suñ lépp la. suñ la kenn du yéen ba ak sëñ Tuuba ndeysaan ndeysaan yéen ñu wax ngeen allo ki lay dem bali bu lool allo yow yow pardon damay loolu 77 883 41 83 77 883 41 83 43 883 43 yow yaa ngi def loo ngay def. waaw waaw da nga wax def rek. salaamaaleykum. kooku dafa mel ni sooxe na de. kooku daal dafa mel ni jotaguñ ko de. yow ni ngay nuyoowee la. waaw yow atta déglu déglu ko yow. da nga naan salaamaaleykum. yaa Seyda. i yaa Seyda mooy kan bu jigéen da nga koy élaborer salaamaaleykum yaa Seyda déglu ndax mi ngi wax yaa Seyda ma def ni mooy ku jigéen yaa Seyda ku góor la non yaa Seyda mooy arab rek mooy arab ah salaamaaleykum yaa Seyda allo waaw sa waaw yaa Seyda ah salaamaaleykum aleykum salaam maa ngi leen di ziar yéen a yàlla nangu siyaar bi. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp alaaji ñànku njaay faramaa reen golden boy golden boy télé bi ñaaw sa xëddënu ma xëddënu mu roog soow mu roog soow waaw waaw ah nuyu naa la de ñaaw fay naa la yi daal Moustapha Sy lañ koy wax sa sa soppe bu la bëgg sax Moustapha Sy ñu ngi lay siyaar bu baax jàmbal maa ngi lay delloo siyaar de parce que yëpp laa seeraan ci sama téléphone ba mu jeex télé bi ay kon sonn nga ci gi wallaahi koor gi ah laal na ñu tuuti rek waaye daal moom jeex na ci jàmm. télé bi kon wétali nañ leen de. day lu moom kay ni ngi beneen affaire. waaw waaw waaw kenn yéen waxatoo leen dara. yëpp laa yëpp laa abonné woon ñaa ko ñaay yëpp laa abonné. télé bi ndeysaan ndeysaan ni ngeen a baax waaye. di di bëggee suñ nijaay jooju noonu Sanex moomu. suñu xarit la papa. di bu baax. kilifa gi maa lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. di la ñaanal yàlla mu defal la jàmm ak sutura. amiin amiin amiin. defal la ndam ak yokkute. amiin amiin waay barke ak barkelle. amiin amiin ñu bokk ñu ñëpp fekkee ko. ngay wootee diwaanu fan. maa ngi wootee Caaroy nii. ah Caaroy. Caaroy waaw sëriñ woo ma man yëmbal laa dëkk yëmbal. kii sëriñ woo ñànku. ah yëmbal sëriñ woo ñànku kay. ah yëmbal yëmbal laa dëkk waaw sëriñ woo maa ngi koy nuyu moom fay naa la fay naa la lu bëree bëree bëree bëri ça ça va naka yitte yi. ça va bien naka naka korite bi korite ngeen ci jàmm. waaw korite ngeen ci jàmm bëgg naa la lool. gars maa leen gën a bégee maa leen gën a bëgg kontaan naa. ah man bëggoo ma man. ah bëggoo ma. bëggoo ma. sama mag bi du wéeru dafa dof. comprendre ko rek. yow papa war nga wax kii. allo waxi dof rek ngay wax yow. kii kii seetaane la rek. allo. <laughs> allo. waaye dem na waaye ngay alu alu nii rek yow xanaa sa yaram neexul. bu dem tàggu. waaw nuyu tàggu rek léegi dugg kër jàmbur rek. waaw jàll yi xam naa ne crédit cent franc la ñuy jënd kat. ay ñoom waa sax moo ñëw. Eh, eh, réseau bi da ngaa crédit cent franc am na ñuy wax ak ñun. nga ne yow yow loo wax yow. Hmm. waaw waaw waaw bisimilah rahmaani rahim am na lu ma wax ci yéen ah, nee na ngeen réglé. ah borom kër gi. nee na ngeen réglé. kan mooy borom kër gi. doo ngeen ko xam de ah bu dee góor euh, yàlla na ñëw. waa léegi ñu ñëwaat ak yéen ci beneen extrait boo xam ni après yéen da ngeen di dugg woote yow waxal yow am na ku nekk ci ligne bi. allo. allo oui ma Ndoumbe. salaamaaleykum. maaleykum salaam. <laughs> nekk. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax naka korité bi baal la ñu àq. waaw baal la baal ñu. yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay doon yu bare bëree bëree bëree. amin amin amin bàyyi na si jàmm bu baax rek. waaw ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi leen di remercier di kontaan a baax. jërëjëf jërëjëf ñoo leen gën a kontaan trop. waaw kon nag yow yàlla dégg ngeen lool te bu ñu sañoon nag affaire série yi day continuer day continuer. incha allah incha allah am na ay surprise yu ñu leen dencal. waaw waaw noonu la incha allah ñu ngi. mbokk mi fooy wootee. ana ana ana ana ana ana fara faramaaren bi. moo ngi nii toog Golden Boy bi. Golden Boy bi. <laughs> faramaaren. waaw waaw. <laughs> ñu ngi lay dégg de. jaajëf jaajëf Faye. waaw baax rek. waaw waaw ñu ngi sant ñu ngi sant baax kay. Hmm, ñu ngi kontaan ñu ngi kontaan bu baax a baax di ngeen. jaajëf jaajëf naka yow fay wootee yow. waaw kay dañuy bañ a wax fu ñu wootee. allo fu ñu wootee mu dem dem na. allo wax wax ko allo ndax. allo allo. waaw gars yi bu ñu. dañuy làqatu déedéet bu ñuy dugg nañ tàggoo. Ah, parce que yow dafa am ay surprise yu nekk fii yoo est-ce que nekkul ñoom itam moo fekkee waaw waaw léegi xam nga lu ñuy def. ah xoolal bàyyi ma wax waa Régis ñu dugal benn sketch après après ñu ñëwaat ci ñoom. très bien télé bien ñëwal ñëwal ñoom suñu téléphone yaa ngi xaar. ilaha illallah. moom ne ma am naa samay jarbaat yoo xam ne seen baay bi mu génnee àdduna ba tey wax dëgg yàlla seen lépp. Eh, hmm. waaw waaw waaw waaw waaw waaw na tooy bu wow. laa ko ceeb bu weex laa dugg. waaw ba am suul ak bëccëg. waaw ma def tuuti kaani. waaw jël li ma am. waaye waaye tey jàpp ngeen de. <laughs> Ah. ak man mi am na loo fàtte kaanoo ko de. kanja kanja. ma jënd kanja. waay waay ya, boy? Ah, damay damay tëj sa. lan eh. boo ma saagaama amul ya boy amul ya boy bopp ya boy amul ya boy par force am na ya boy am na ya boy am na bopp ya boy amu ko amu ko am na ya boy am na bopp ya boy bopp da nga jënd bopp ya boy sama mille sama sama mille francs ma bopp ya boy coof laa jënd ak sëdd sa mille francs daf maa doy sëdd damaa dama teg fa mère ma yaale mu bopp bi laay bañ waaw jënd ya boy jënd bopp ya boy jënd ko bàyyi tool wala ñu nag moo bi sax la ni jaay maa ngi yegg ci biir waaw waaw waaw waaw ma koy ma caatee nga naan sànni dañ koy maccaatee amul yee fitna boo toog nañ bopp ya booy dañ koy maccaatee. Eh, eh, eh, bu ko waxaat ñëwal bopp ya booy. bopp ya booy bu ko waxaat bu ko wax loolu. waaw dañuy maccaat bopp ya booy dañ koy maccaat laal ma dangay ah, def def dangay def def rek ñëwal laal ma coof lañ jël coof lañ jël. coof bañu ma xam. waaw coof bañu ma coof bañu ma ginaar bañu ma dara leneen laay bañ. leneen lan bu ko wax de. Fatou bi bëgg de ne ci kër gi naan kenn du fi wax bopp yaboy pour lan. ca ca ca mën na ma dama ci biir maa ngi ñëw dama laa soxla maa ngi ñëw ñu waxtaan. Hmm. Hmm, waaw maa ngi ñëw waaye dañuy ma caat ci bopp yaboy bi de. waaw waaw waaw waaw waaw. ma caat par la force. waaw waaw. bàyyi leen may may ngeen di nga wax. waaw man wax dama ko wax dama ko tey nag yaa joxe dépense bi sax yaa joxe dépense rek. mais li ngay bañ ñun waxu man waxuma la ko. man mooy sa baay waxuma la ko. Hmm. waaye yaa ngi seetaan kii bu di wax wax. man nee naa la ko nee naa ko bu mu la ko wax. waaye man naa ne bopp yabooy. Eh. bopp yabooy. eh eh déglu la déglu déglu fii du kër eh waa déglu naa fii du kër nga de. Hmm. fii damay tojate affaire yi de toj fay la. waaye léegi yaa leen tojal tojal tojal. ah boo leen tojee da ngay fay de. amul papa gañ amul dara fii jàpp gis nga li taxoon. amul lépp li taxoon bañ ma nee naa leen indi dama ne borom kër gi mënuma leen indi ndax rek la wu leen bu ko wax bopp yabooy bopp yabooy <laughs> bopp yabooy waaw léegi man waxuma la ko bu ko wax loolu. bopp yabooy ba mu neex ma kii day dof dof lu rek dara jotu ko bopp yabooy. na jël responsabilité bi. waaw jaw na jël responsabilité bi man. Papa Ngagne laa xamul ni ma koy def. na na non Papa Ngagne moom non non non Papa Ngagne moom kay moom moom kii. xamul ni ma koy def moom laa lus. Hmm. waaw mais bu mu. yow am nga kóorus yow am nga kóorus. bopp yabooy. yow yow mi ko wax bopp yabooy. waaye ma ko wax yow yow ma gën a jege. yow ñaw ñaw xoolal lii lagal naa ma dina ko dell nga ne dal daal. ma ne ma jël micro yi ni la ko jóg. ci bët. waaw waaw ci bët. maa ngi koy njëkk ah man xaw ma man daal de de de daal boo dóoree ma ma jam la rek. wala nga dóor ma dóor. su dee dóor ma. ah boo boo dóorul tamit man man njëkk laa dóor rek. dee bul dóor pour nga bañ ma dóor. waaw waaw dóoratu ma dóoratu ma de. waaw ndax moom booy jaaroo moom. da nga koy lakk te naan ko bu ma lakk. ñëw waaw. waaw man balaa nga maa rey ma rey la balaa nga maa gaañ ma gaañ la man du ma la jur ba pare nga gaañ ma ma perte. waaw ay bañ yoo xam ne amoon na ngaa soof. waaw yaa ma gën a soof fuuf. xam nga looy bañ ci bopp yabooy. may ci bopp yabooy xaw ma loo ciy bañ. ay balaatay dee rek yow a bëgg bañ. yéen a yéen a ngi tàggat sama xol bi de. di yàlla xol bi sax nga koy laaj. waaw léegi lan lu tax ngay bañ bopp yabooy. lu tax. réew rek Sénégal kenn waru fee nekk di wutal sa bopp bañ. jëw ñu ñi ñuy seetaan ñu ngi laan lu tax yow ngay bañ bopp yabooy wax la. <laughs> deewal deewal yow mënoo sax. jooyal deret jooyal deret ñu ni bopp yow maa lay nuyu di nuyu euh, Fodé Cross waaw di nuyu Top di nuyu Mbaye Xaar euh, Mansour Ba maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax ah man nag ñi ñuy seetaan yëpp mënu ma leen a nuyu nag wax dëgg yàlla ah, ah Thiat Gueye nuyu naa la nekkal foofu de jooy Basine Ka ngi lay nuyu mm, Ibzo Gaye jaajëf waaye ah waa seetaan waaye ñu ngi leen di nuyu waaye. ñaar ah, mais doo bàyyi jooy yow. ñaanku doo papa may ma ko rek may ma ko rek yabaate bi bëgg a dee bopp nga bëgg fi nekk di bopp yabooy waa léegi jeex na waa léegi dama wax sompat sompat moo tane allo. waaw bul wax boobu yemay daal. allo. allo allo waaw waaw allo ma ne nee na bu ko wax bopp yaboy. allo. allo Manumbe. waaw ah Manumbe. bàyyi ko Manumbe. allo. allo waaw kooku Manumbe. waaw man la Manumbe ça va. ça va bien. kii la lay ree. yow yow yow noo tudd ak fooy wootee. non da reelu quoi yow moom da reelu. yaa yaa ma gën réew. damaa leelu damaa leelu damaa da nga réew. da nga leelu leelu. waxal waxaatal loo ko wax. allo. kii da koy reetaan bi. kii dafa réew. allo Maloumbe. waaw. allo. allo. allo. allo waaw. yow ñu ngi lay dégg. man Italie laay wootee Italie laay wootee. fan Italie. mais ki lu wax. xanaa ci ordinateur am di ñuy seetaan wala téléphone am. yow dañuy bëgg di déglu fay di fii di déglu fay. Hmm. allo. allo allo. mais yow doo fay télé bi.